Proval euh, euh, benn projet boo xam projet wu ministère de l'agriculture et de l'équipement rural euh, li ko tag li tax a jóg benn bi donc mooy ndox ndoxum pour ñu mun a béy la maîtrise de l'eau ñëpp xam nañ Sénégal am nañu potentiel bu potentiel boo xam de dafa jóge ci taw bi mais aussi au souterrain. maanaam ndox bi nekk ci suuf bi yooyu yëpp ndox boobu ay quantité yu importante la lañu am fii ci Sénégal projet bi en tout cas dans les huit régions yoo xam ne dafay intervenir euh, donc liggéeyam mooy xool ak collectivité territoriales yi ak acteurs yi ak services techniques yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci domaine boobu naka la ñuy fexe pour valoriser ndox boobu kooku benn aspect la deuxième aspect bi mooy euh, chaîne de valeur chaîne de valeur boo jëlee par exemple filière par filière nga jël filière ou filière ou pomme de terre exemple euh, filière bu nekk dafa melni ben chaîne la bo xamné da fay rouler chaîne bobu nak bu fekkee ne am na benn maillon boo xam ne dafa grippé hein, dafa dafa doxul donc maillon bobu war nga ko dégripper comme on le dit schématiquement lay wax donc euh, chaîne de valeur approche chaîne de valeur moy lolu. xool naka lañuy fexé donc filière bu nek euh, ci ban maillon la agir en rapport avec donc euh, bénéficiaires mais en rapport aussi avec les acteurs Benen aspect bi l'entrepreneuriat entrepreneuriat rural entrepreneuriat bi euh, en tout cas suñu objectif à la fin du projet à peu près 28 000 emplois décents mais créer tamit lu mat petites et moyennes entreprises donc petites et moyennes entreprises dans le domaine agricole donc euh, ci yoy est, le euh filière yi nag ceeb la ah, ci yenen zone surtout zone sud yi euh, mais aussi surtout filière horticole horticulture nak bokoy wax tamit maraîchage mu ngi ci waye nak agriculture fruits yi fruits yi tamit ñu ngi projet bi au total 80 milliards la. région de Thiès à peu près donc moins euh, moins environ donc 8 milliards ci est-ce que entre zone des Niayes et euh, zone bassin arachidier kooku xam naa euh, buñu gëna tok en tout cas en rapport avec le gouverneur nañ ci gëna xam daal répartition bi wane nañu ay modèle de développement yu dëgër